jaa jaajëfatee jaajëfatee sama gars yi Mister Shake la maa ngi nii Brooklyn New York gars yi tey dama ñëw dafa leen benn vidéo ci Ousmane Sonko ak sécurité maanaam kaaraangeem ndax dañoo gis benn mbir bu doy waar mooy ne Ousmane Sonko dafa am benn policier bu ko topp policier boo xam ne sol yére policier ay yére rek yérem la sol yére normal boo ko gisee doo ko teg policier mo top Ousmane Sonko légui dañu bëgg xam lan moo tax mu top Ousmane Sonko est-ce que dafa top Ousmane Sonko ngir ray ko ngir fagaagal ko lan moo tax mu top Ousmane Sonko loolu mo jaaxal nit ñi Ousmane Sonko du président du dara bañ koy top Ousmane Sonko bu soxla karangem amna ñu koy aar sank sax dama sétane Fatoumata Danso mu def ben laay Fatoumata Danso ñepp xam nañ ko moy jigen bi nga xamne Kaliphone mooy xaritam fan yële daf fi gënoon sax mu ne bàyyi na Pastef waaye tey dañ ko gisaat léegi dafa mel ni ñëwaat na Pastef maa ngi doon seetaan live mu wax ci affaire policier bi waaye Fatoumata ni mu jeexale mooy ne moom ci boppam moom dafa bëgg ñëw mu mu mu aar Ousmane Sonko loolu dinaa ci wax bëgg naa tamit wax ci le 10 mars pas le 10 mars le 10 novembre bi waa ji ñëw ndax Barthélemy Diaz Ousmane Sonko dafa ne ak Khalifa Sall ne ñëpp dem ñu ñu ñu aar ko tribunal ñu gunge ko ba mu waxee loolu tamit ñu gis ne xalifa sàll moom it ci boppam nee na lii du jàll il faut ñu gunge Ousmane Sonko mais balaa ñuy wax foofu nañu wax ci euh, Fatoumata Danso li mu wax moom nee na dafa bëgg nekk Amazon dafa bëgg créer ay ay benn euh, agence de sécurité Amazon mu ne na ko Ousmane Sonko woo. mom ci bopom Fatoumata Danso mom moy garder Ousmane Sonko Fatoumata Danso dit qu'elle va démissionner de son poste de son travail elle va quitter la France je pense qu'elle est en France ou en Italie elle va quitter euh, l'Europe pour venir 100% travailler pour Ousmane Sonko parce que dafa bëgg li ko li gis policier bi mu gis ak ni ñu ba Ousmane Sonko moko nakaré Fatoumata Danso dafa war comprendre.

buñu mënuloon li ñuy def duñu ñu jàpp policier bi kon Ousmane Sonko dama bëgg mu leer ci bopp Sénégal amul problème sécurité Ousmane Sonko yàlla mi ngi koy aar Ousmane Sonko mi ngi aar boppam Ousmane Sonko Sénégal mi ngi koy aar Ousmane Sonko le 8 mars xeex yi fi am bañ ko bëggee jël si le 5 février xale yi génn peuple bi ñoo koy aar Fatoumata Danko ñun lu ci yow mooy vous faites da ngay ñëw ci Pastef nga nekk Pastef à 100% Ce que lu la Pastef mën a def bul génn nga ne bàyyi nga Pastef comme ni nga fait fi defee woon ba wax sax ne bo démé APR bu la kenn wax dara man ma dégg ma dégg Fatoumata Danso mu wax lolu suma ma APR que personne ne me dise quoi que ce soit parce que j'ai travaillé pour Pastef parce que j'ai entendu Califone dire que Fatoumata Danso elle a travaillé pour Pastef pendant 5 ans mais elle n'a pas n'est-ce pas, la reconnaissance qui lui est due pour une Amazon, pour quelqu'un, n'est-ce pas, qui s'est battu, n'est-ce pas, qui insulte euh, à longueur de jeûne les détracteurs, les détracteurs d'Ousmane Sonko, pour une femme qui attaque, n'est-ce pas, avec Caliphone. Ils ont attaqué le bilan de Macky Sall, n'est-ce pas Mais, euh, comme récompense, comme réponse, ils ont été ignorés par le pastif, d'où leur découragement, leur dépit, au point que Fatoumata a émis l'irréparable. E elle, a fait l'irréparable, e c'est-à-dire elle a dit qu'elle pouvait même aller travailler avec des mères à pair ou même avec la paire. Fatoumata dans ce lol la voir. Moi, je suis dit que je kon bu wóolu di ko di wax ne na ko Ousmane Sonko mu ko Ousmane Sonko ah, mu arko lolou loolu munul nekk Fatoumata du question wolou wóoluwuñ la du question dara waaye do génn yow nga ne Pastef nga amo lu la neex rek wala degol lu la neex wala wa Pastef saga nañ la yow nga génn nga ne damay bàyyi Pastef ñu toogaat touti nga wax ak nit dof temps yi rek nekkon nga fi di di critiquer euh, Sonko ba mu demee Casamance ah Sonko wax ne ku ko tooñ dina la daggate parce que Oumar Alpha Omar bi nga xam ne ko jëlee ba fële euh, euh, euh, yëmbal ñu ñëw songu leen jamate leen Ousmane Sonko ne bu fi Alpha ñëwee dina ko daggate Fatoumata mu ne warul wax loolu. mu ne Ousmane Sonko warul wax loolu tey yow yaa ne Ousmane Sonko bu mu wax non bu mu wax violence bu mu bu mu def ay pour ay dent pour un dent pour dent la loi du talion bu mu wax waxu ah fitna tey yow yaay ñëw nga ne da ngay aar Sonko te ku ko laal di nga di nga raxas foofu yëpp. yow jigen kon Fatoumata vraiment lolou qui Ousmane Sonko doulo wo soxla nañ la ci réseaux sociaux yi gis nga sank personnes ngi lay personnes en direct ëpp la une SN te Facebook kon ñun fuñ la Fatoumata nga wax ci tal euh, ci Macky comme ni ko dalé mais nag bul boo amee lu la naqare rek bul ne eh bàyyi naa delluwaat na ci APR loolu boo koy def pour nga jege Sonko sax day metti duñ la mës a bàyyi Fatoumata duñ la mës a bàyyi nga jege Sonko surtout ak li Fatoumata Fouta Tampi def sa turandoo Fatoumata Fouta Tampi ñëpp ko wóolu woon woo ko ci marché yi woo ko ci marché le vingt cinq euh, euh, euh, le vingt trois juin bi ñu def côté côté amitié Fatoumata dem ba ci biir mu war ñu moo tax ñoom Sonko du ñu wóolu kenn du questionné nag li ngeen nekk ay jigéen parce que góor itam dañuy war ndax gis nañ ñu ñu def maatam Jibril Ngom jaam boobu ne du ñu bokk maatam ba ñoom sonkoo nag ne du ci dal Sonko nee na dañuy bokk par force maatam dañuy bokk géejawaay dañuy bokk Mbour dañuy bokk Saint-Louis dañuy bokk fépp foo xam ne Macky Sall dafa ne du bëre looloo tax ñoom Sonko génn mu def. Euh, euh, euh, conférence de presse bi mu ne nag Barthélemy Dias le 10 novembre bi nañu dem ñu gunge ko lu mu leen jaral nañu ko jaral Khalifa Sall jég wax loolu waa APR amuñu dara lu ñuy def kan mooy waa APR mooy ah, nu mu tuddati ah, kan mooy waa APR mooy la kii ne dafa bëgg nekk maire Diouf Sarr moom ak Seydou Gueye ak. xaw ma Zara la tudd xaw ma Yan Thiam xaw ma ñoom ñu génn ñu ne ndeysaan ñu ne waaw ah lan la ñu wax le 10 mars ñu ngi xaar ñoom Sonko dañuy dañuy defante ak moom ba mu sap ba mu saf-sap ñoom nee nañu li amoon mars dootu fi amaat wax nañ ba wax sax le 8 mars waaw da ngeen yaakaar ne li ngeen defoon bi paa di ngeen ko defaat kon ñoom dañu tëkku fi mu nekk nii Macky Sall li mu bëgg mooy deuxième vague Macky Sall lii rek la yàkkamti woon parce que xam na ne élection yi bu demee dañ koy duma dañ koy duma duma yu metti loolu la xam moo tax mu bëgg sàcc élection yi bu dee nag day sàcc élection yi ñoom Sonko duñ ko seetaan mu sàcc duñ ko seetaan mu sàcc élection yi léegi nag moom mu ne léegi ñëw leen le 10 nga ne da ngay jàpp Barthélemy Diaz lu tax Barthélemy Diaz mënoo bàyyi ba élection yi passé nga ne da koy woo te loo koy woowee ci loo xam ne fukki at fukki fukki at ak benn ci ginnaaw Macky Sall ba Ablaye Wade di topp Barthélemy Dias yow Barthélemy Dias nga àndaloon n'est-ce yaa ko def député mu dem ba ci biir àndul toog yow tey nga bëgg ko faagaagal xalifa Sall nag nee na loolu jeex na faagaagal euh, euh, Karim faagaagal ma man Khalifa Sall ngir ma bañ a bokk ci élection yi nga bëgg faagaagal Sonko ñu ne la du jàll ñu tam lañ lay waxee faagaagal euh, Barthélemy Dias du mësa jàll kon nag fi mu nekk nii dañu bëgg xam kan mooy dellu ginnaaw dégg naa télé dimanche Macky Sall dafay tukki moom bu dëkk bi tàkk du ko fekkee mukk dëkk bi buy tàkk du ko fekkee mais fii ak mercredi dinañu xool kan mooy dellu ginnaaw parce que Macky Sall bu fekkee ne dafay yaakaar ne moom pare na ut na ay blendeem ak ay char de combat mooy oto xeex ut na ay policiers yu bëri temps yi rek dégg naa am na 900 gendarmes ah juróom euh, ñeenti téeméeri gendarme yu bees yu génn seen seen école jël na ay nervi maa sàmbaay boo yoroon seen i yet yi yor seen fitale fital daf leen buggoon dugal ci gendarmerie bi ak police boo demee dugal na leen Macky bu yaakaare ne pare na ngir xeex waa senegal vraiment day nax boppam man nag yàq yàgg naa leen wax ne Macky Sall du nitu jàmm waxoon naa leen le 8 mars bañ ko jekkoo ñëpp daw te ñu nekk fi di rëy làmmiñ Zahra Thiam di di di di Yane Thiam la xaw ma di di rëy làmmiñ di wax ne dañ koy defanteeg ñun ba mu ba mu saf li amoon marché dootul amaat ak ah, ak ñoom Diouf Sarr ak yooyu di wax ne ñun ay cóone lañu ndax nan nga mën a comprendre noo balaa may wax loolu ñoom nee nañu ñu ngi ñuy xaar dañu koy defanteeg ba mu saf léegi ñu ngi xaar ndax bu fekkee ne yéen policiers yi ngeen yor wala armée bi ngeen yor yaakaar ngeen ne mën ngeen noot Sénégal yëpp 17 millions d' habitants da di nax seen bopp gis nga gis nga. la, communauté internationale est en train de voir tout ce qui se passe au Sénégal. Et ils sont conscients que le processus démocratique est en train d'être travesti, est en train d'être polié parce qu'il y a une fraude massive qui, est en train d'être perpétrée par Maxal. On a vu les provocations de Doudouad, pas Doudouad, Doudouka, les provocations de léegi ñu gis policier bu ñew di di song Sonko gis na ñu tégué stress Ousmane Sonko ba ay euh euh membre am ay garde Nessane ak ak euh, Ibrahima Fall hein ak ñaari garde corps euh, euh, ama ama ndaw Nessane di 50 ak Moussa Camara da di dee ci accident loolu yépp gis nañ ko tay nak ngeen ne pare ngeen pour xeex man xam na ne da ngeen di wax da ngeen di sóob est-ce que le 10 bi sax est-ce que duñ ko dakk parce que Macky tap Macky Sall tapet la bu xat tappet la buqat la est-ce que le 10 doo ko sax dàqa boo ko dàqul man gëm naa ne Barthélemy bu ñëwee tribunal du fa def du fa def euh, euh, fukki minute ak juróom du ko du ko passé te xam naa ne ñemewu tee téye Barthélemy parce que boo leen ko téyee Ousmane Sonko nee na ñi ñëpp génn Khalifa Sall dafay teew ñëpp dafay teew bu ñu demee ba Aïda Mbodj mi nga xam ne moo fi nekkoon chaque jour di ñu wax jàmm jàmm jàmm jàmm moom ci boppam dafa dem ba ne yéen amu leen jom raal bool. raalo bool la wane waaw léegi daal euh, gars yi laa loolu laa leen bëggoon indi léegi rapidement man bu ci kanamee sax dinaa ci defaat live parce que fi mu nekk nii dëkk bi dafa tàng Macky Sall yaramam dafa tàng Macky Sall day xaru bu yaakaaree ne mën na rey Sénégalais yëpp day nax boppam suñu réew da ñu koy da ñu koy jox ci A wala ci B du ne far ba Ngom mooy toog maatam di jël ay millions Sénégal di ko jox Jibril Ngom di ko wax bàyyil Sonko nga ñëw ci man ba pare yakal sen sen sen dossier Farba Ngom moomul Matam Macky Sall moomul Matam moomul momul moomul way election yi fay am ci yoon wala mu baña am te bu bañe am lu jot am bu dekk bi génnaatee bu len wax ne serign serign sëriñ yi nañ nañ ñu jàppale ndax serign fi mu nekk ne xalif généraux yi xam nañ lu xew ndax dekk bu melne Matam nga ne benn bokk ki du bokk yeewu askan bi du bokk Dakar nga ne Bougane du bokk Barthélemy Dias du bokk sëriñ ñu waxuñu dara bu ñu bàyyi nag ba lépp tàng ba ñu ne dañ fiy jëlee Macky Sall ngeen ne doo leen ko fi jëlee parce que Macky Sall ba leen waxee dañ ko fi war a jëlee le 8 mars Pastef yéen ñëpp ngeen may saaga le 9 mars parce que dama ne woon Sonko vraiment booy xool xaw nañu trahir ñëpp di ma saaga saaga yu bon waaye tey waxu waxu coup d'état sax bañu leen ko. militaire jël pouvoir jël nguur gi sax mo len gënal Macky Sall parce que ñëpp xam nañu Macky Sall pare na pour rey ay junni sénégalais ngir tok fi gars yi yépp yëpp ci si waxtaan si kanamee heure Sénégal 6 h sama live like leen partagé leen abonné leen ba ci kanam ñu waxtaan ci li yépp jaajëf vive le président Sonko merci.